téléspectateur ak téléspectatrice leeral TV ak leeral point net du ñëw seen émission bi ngeen taamu bëggal ko seen bopp di leeral taal leeral taal di am tous les mercredis à 16 fii ci leeral TV ak leeral point net euh, mën ngeen ko seetaanal suñu Facebook wala si suñu page YouTube yi euh, tey nag leeral taal dafa doxantu ba fii ci West Foire Khadija séduction di madame euh, Diagne. leeral taa nag suñ ko waxee lépp loo xam lu jëm ci sañse la yëre dàll wala accessoire mais tey dafa changé affaire yi dafa ñëw ci li nga xam ne mooy sañse biir néeg sañse biir néeg buñ ko waxee femme mariée yi tax ñuy wax ak ñi nga xam ñi ngi waaj a dugg ci néegu sëy ngeen préparé jël big te noté xam ne ci xadisa séduction lépp loo xam ne jëm na ci wàllu affaire de jonge séduction rek di ngeen ko am fii kon sama gars yi ngeen topp ma dugg ci biir xoolal leen Khadija séduction lan la leen indil ci leeral salaamaaleykum Khadija Séduction madame Diagne ah ñu ngi leen di. maa ngi leen di fay. Mhm. tey nag euh, leeral taal yow la ñëw seet si fii sa boutique di euh, Khadija séduction di euh, madame Diagne leeral taal nag bu ñu waxee waxuñu lu jëm ci yére wala daal ay accessoires ay beauté déedéet dañu wax ni sañ sañse ñaari façon la sañ sañse si biti ak sañse si biir sañse si biti nag mooy sol yére sañse yaa ma gën a xam sañse si biir nee nag mooy li nga xam ne fekk nañ ko ci boutique bi muy affaire ay nuisette ay fer ñoo min seen yéen a ma gën a xam yéen jeeg yi yéen ngi seetaan xam ngeen wax yéen a a nga xam ne yéen a ngi waaj a dugg si néegu xam leen foire côté Brioche d'Or bi après dinañ dugal numéro bi ngeen woote ñëw commencé préparer bëggal seen alaaji yi madame bonheur yi fii nag mooy confirmation bi fi ngeen di xam fii la ñuy xam les vrais madame bonheur kon nag ma bàyyi Khadija mu nuyoo ak ñun téléspectateurs yi ñu xam tey lan la ñu indil si seen émission bi di leeral taal. may nuyu waa leeral net di kontaan ci ñëw bi ngeen ñëw fii ñoo ngi fii ñun pour lépp luy neexal kër rek di neexal néeg bi daal ci loolu la ñuy dox. lépp lu jëm ci wàllu jonge daal ñu ngi ci biir. voilà kon ñoo ko déggandoo kon bu leen dem bu leen jàppe topp leen ma ñu xool lan moo xew ci boutique bi. voilà comme ni ma leen ko waxee topp leen ma boutique bi yëpp lañ nar a wër wax leen li nekk si boutique Khadija séduction lépp jéeg ji yéen ñi nga xam ne yéen ngi waaj a ci mariage yi xam ngeen ni fan yi sax mariage dafa bari ngeen commencé préparé bégal alaaji yi madame Bonari yéen laay waxal waxuma ak keneen. Ah, waa Khadija lii. bi moom lii diis na di lii la. loolu loolu la. ak ay composant am nii ay composants am ci biir. voilà dañ ci am trois variétés am hmm? serviette. waaw am sa bu am jom boo wara a mën a defal alaaji si uh-huh. guddi gi ak perle yëpp ci biir. Ah, lu blanc li mooy serviette bi mooy bi. waaw baax na kon yéen ko gisandoo. Hmm. te commencé guñ nag <laughs> kon topp leen ma ñu continuer si si Khadija séduction euh, lii ay euh, kii la. loolu ay soutien la li ay soutien la xale yu jigéen yi yéen ñëpp kaay nag nekkalu fii femme mariée kese yéen xale yu jigéen yi hmm. seen wàll mi ngi fi euh, Khadija. ay lingettes la mhm. voilà yéen yéen a gën a xam Xadija lingettes yi xam nga jéggi comprendre nañ waaw d'accord xale yu jigéen dañ koy yor souvent dañ koy utiliser parce que dañ koy yor pour da ngay ak démaquillant dafa mel ne da koy def voilà mën na démaquillant aussi lii nii loolu ay parfum la voilà nga classe yu neex sax ay parfum de classe la yii yëpp ay parfum de classe la mhm. waaw dafa mel ne jinjeer seen de te boo xam dafa am limon am hmm? jinjeer am miel déedéet kay monsieur rek suba teel bi rek nga defal ko benn taas jox ko surtout sedd bi nii waaw waa kon baax na gis ngeen ko nii jinjeer la fooleen leen ko seen rek daw leen falaayam <laughs> waa lii li may séen nii Xadija lii crème waa baax na crème épilatoire mi ngi nii euh, nekkalu fi nag euh, femme mariée kese pour ñëpp la ndax dañoo toll jamono boo xam ne nag jamono tàngaay la da danga koy soxla mhm. da ngay soxla boobu crème la voilà pour loxo yi nooy parce que il faut mu nooy pour booy raay monsieur. pour boo leen di bës seen alaaji yi sax nag mhm. dafay baax pour seen loxo yi mën a nooy. Mhm. boobu massage pour monsieur la. ah pour pour monsieur kese la waaw koy defal crème massage gommage lay nekk. baax na célibataire yi wax naa la wut leen jëkkër ngeen lànk toog leen foofu. boobu gommage la pour corps. lii ay parfum la waaw. gisoo yëpp ay parfum la mhm. yii yëpp si boutique Khadija séduction kase nga ko mën a fekk mu ngi nekk West Foire côté euh, kii bi Brioche Dorée bi après di ngeen jël numéro bi ngeen woote ngeen ñëw seet si ko lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu taaral biir néeg la monsieur Beck bu xëyee bind la chèque nga daal di kontaan Sénégal jëm kanam mhm. kon ñu continuer Khadija yëpp ay parfum la yëpp ay parfum la en mélange yi Khadija la tudd yëpp ay parfum la parfum de classe am ay oud original huile voilà ut original xam nga yombul te da koy jaay yëpp ay parfum la bi mooy Khadija yëpp Khadija la Khadija moom moo ko defar mhm. Mhm. mélange Khadija yi la mhm. voilà Khadija séduction ba tey paree gu ñu de lii may seen dafa mel ne goowe la voilà yéen a gis goowe bi ñoo xam ne ñun koy defar composant yëpp ñoo koy def mais boo si tegee benn rek. xanaa bi mooy bi nga taaloon bi ñuy dugg kon. waa am na nu mel bii. bii am na nu mel yii yëpp si boutique yu nga ko mën a fekk. Mhm. mooy yu ndaw ndawaan yi yi ay lan la yu sew yi. yooyu nag dañuy jaay chicha. mooy fii de chicha. d'accord kon xam nga Khadija nekkalu fi euh, femme mariée kese bu lee fii yéen yi nga xam ne ngeen bëgg di def si saa am naa ay xarit xam naa dinaa leen dinaa leen ko jox après voilà gis nga mi ngi nii yii yëpp da ngeen koy soxla ci seen ci seen ci seen kër yi mhm. Khadija séduction yemul kese ci euh, lu jëm si wàllu euh, nuisette wala dara day def jaay ay rouge à lèvres yëpp ay ay rouge à lèvres la yi ay euh, kii la eyeliner wala mascara. ñaar yëpp deux ans la. waaw la. day jaay ay cils aussi gisoo cils yi da nga teg te du la amal benn problème ay crayon mu ngi ni bii noir la bii kii la rouge bordeaux ak kii bi bii ban couleur la bleu. voilà mi ngi ni yii yëpp si boutique Khady Sarr séduction nga ko mën a fekk nekk si euh, West Foire boo ñëwee rek di ko gis pinceau yi te ñi nga xam ne ngeen bëgg di maquiller seen bopp mën ngeen ñëw fii jënd ko lii dana leen amal njariñ parce que bu nekk ak li mu war a def la waa Khady li may seen rouge noir yi man maa ngi ma ne ku nekk Saint Valentin rouge rouge gi kii yi ay bougie la waa baax mhm. mën nga teg sa coiffeuse mhm. mën a def dîner tête à tête yaa xool foo ko bëgg a yow monsieur Kassé waaw baax na wala nga teg ko décorer ko coiffeuse bi day rafet yëpp fi nga koy fekk si boutique Khalissa sélection yooyu yëpp en promo l'instant nekk si fii si West Foire euh, euh, yooyu ay pour pédicure manicure booy defal sëñ bi voilà ah, xam nga léegi si nag di bàyyi sa jëkkër muy dem di def pédicure feneen sax dafa wóorul il faut nga am affaire yi sa kër mhm. di ko defaral ba mu baax voilà man yow laa gëm <laughs> mi ngi noonu gisoo yooyu yëpp pour pédicure la mën ngeen ko fekk fii si butigu Khadija séduction ak sel yi ani ñu mooy lii ne mhm. ah d' accord gisoo li lépp fi nga koy fekk si butigu Khadija séduction euh, en tout cas daal femme mariée la fi nekkal lii yëpp si suuf ay cuuraay la mhm. cuuraay façon bu nekk nag di nga ko fekk euh, yoo xam ne Khadija moo ko defaral boppam yoo xam ne ay cuuraay jidda da koy jaay day jaay yëpp yëpp ay cuuraay la boo leen ñëwee si boutique bi mooy bu mag bi mooy njaq bi nekk ci mhm, biir. Mhm. day mhm, macha allah néeg bi day lool sax. mooy bu mag bi mooy ponkal mi voilà gisoo Adja xam nga lii. deux pièces yi waaw dañuy def promo deux pièces yi. deux pièces yi la nekk kon gaaw leen gaaw ngeen ñëw ci promo bi commencé dafa mel ne yéen a ngi waajal benn vente privée. moo war a nekk fële ca si plaza. kañ la war a doon. muy nekk vendredi samedi dimanche prochain. vendredi samedi dimanche. Mhm. kon mi ngi noonu ngeen préparé ko ngeen mën a ñëw si vente privée bi euh, daal di profité ci promo bi ngeen mën a am ay bagages yu yomb te neex bu ko defee boo leen demee monsieur da leen di bindal chèque ngeen ñëw jëndaat Sénégal jëm kanam. jëm kanam Khadija lii ay la. boobu ay Nescafé la pour góor ñi. voilà mi ngi nii. waaw yokk puissance. Hmm, baax na lii fu xale mi ngi nii yooyu yëpp Khadija fii nga ko mën a fekk. ci kër uh-huh. fi lay am zone de danger dafa mel ni de. boobu zone de danger pour pour les hommes la côté boobu. waaw côté bi zone de danger la. xale du fi taxawaalu. mu ngi nii yii yëpp nii fii nga ko mën a fekk. Khadija séduction Ouest uh-huh. Foire la nekk coté euh, Brioche Dorée bi boo ñëwee di nga am li nga bëgg yëpp lu jëm ci wàllu séduction fii nga ko mën a fekk ci boutique gu Khadija séduction euh, li ay cuuraay la waaye yan xeetu cuuraay la te tëjewul nii. bi mooy poudre goyo bi gongo mhm. mhm. voilà mu ngi noonu li ay cuuraay kii la li ay goowe la bii mooy ban bant càdd baa ngi nii yéen ko gisandoo mhm. bii bii tamit bant càdd la ak bii aussi waaw baax na yii yëpp si Khadija séduction ngeen ko mën a fekk mu nekk euh, fii ci West Foire kon mi ngi noonu sedd baa ngi waaj a ñëw dangeen ngeen koy soxla da ngeen di ñëw jënd lu bari comme ça doo leen ko manqué ndax xam naa ne fi mu jamono bi toll nii boo xefee tuuti boo ñëwee da nga fekk affaire yi jeex yi yëpp ay parfum la si boutique gu Khadija séduction rek nga ko mën a fekk nekk si West Foire ci ànd bi ah bii mooy fer bi fer bi nu mu tudd moom dànq la ah, dañ koy xooj bu defee koy takk sa ndigg toog rek di xeeñ neex ah mooy xet bi xeeñ te duñ xam fu muy jógee d'accord bii la ko ngay ñëw indaale sa odeur bopp d'accord jóge dañ ci parfum yi jóge ci ci ci ci ci yu baax baax yi nga xam ne si boutique bi nga ko mën a fekk ñoo ngi ci li nga xam ne mooy fer yi nag fer yi am na si yoo xam ne man sax àttanuma ko <laughs> yii yëpp si boutique Khady Sall Séduction nga ko mën a fekk baax na xaaral ma bàyyi côté boobu àttanuma yooyu gisoo leen ay couleur yu doy waar la couleur yi dafa mel ne euh, moom mën na làmp de. waaw mën na làmp. voilà boo fay làmp day joxe éclat boppam. dafay tàkk. Mhm. waaw baax na. <laughs> femmes yi kon préparez-vous ngeen ñëw. Mhm. jënd si si si si si période yu baax yi. waaw ak jéeg ji ak yii. Mhm. jéeg ji nga xam ne dañu bëgg a bégal laaj yi. yëpp fi nga ko mën a fekk si boutique bu Khadija Tradition. Ah. yu baax a baax. voilà gis ngeen ko. seli de dafa mujjee lëj. yi nga xam ne ay ay différent kii la. ay différent taille la. ku nekk ak bi lay jox. ak sa ndigg. nga xam ne fer yi yow yaa koy nasal sa bopp. maa koy nasal sa bopp. ah macha allah jigéen ñi war di takk fer nag. waaw dégg naa dafa baax xam ne am na jéeg ci kër gi. dégg naa jéeg bu nekkee ci kër dañoo war a xam ne jéeg moo nekk ci kër gi. parce que ndiggu jigéen du mel ne comme ndiggu góor. du yoon dañu war takk fer du yoon waaw muy yëngatu. <laughs> loolu du yoon loolu warul warul am sax. <laughs> kon Khadija nga xam ne euh, madame Diagne nga xam ne kon euh, ñi nga xam ne dañu bëgg a téye alaaji mhm. téye ko fu dëgër yow jàpp nga ne yow bu ñu ñëwee ci yow di am résultat waaw dañuy am résultat parce que ah. dañ teg ci yoon voilà waaw toog yoon la yoon boo xam ne moom boo ko toppee incha allah moom résultat ngay am bëgg naa loolu ku wóolu boppam ci li muy def <laughs> mu ngi noonu gisoo yi yu yi la waaw yu ji la parce que ñoom dañuy ah. préféré bu ñu solee jiin muy feeñ gis ngeen ko mi ngi nii dama ko àttalul ndax dafa xaw a bari yu sew sewaat yi pour les yi nga xam ne bëgguñu comme li mu wax sànq rek ne leen ndiggu jigéen warul wéet ngeen war sàkk takk si fer yi li ay yi am chaîne yi aussi lii tamit ay chaîne la yëpp ay chaine la ay chaîne ndigg la gisoo yëpp ay chaîne ndigg la chaîne yi moom Khadija nu demee ni waaw baax na nga xam ne dafa mel ni affaire yi moom Euh, jour bu nekk ak li nga war a takk ak li nga war a def euh, dafa mel ni affaire yi comme ay nuisette a ngi fi nuisette bu nekk dafay ànd ak fer wala affaire yi nan lay demee. waaw nuisette bu nekk day ànd ak feram. Mhm. jigéen daal chaque jour dafa war a fer. Mm. boo ko takkul jigéen sa nga takk ko ci kër gi. ak femme mariée yi naka la ñuy def dañuy ñëw par exemple am na ñoo xam ne bëgg nañ bëggal alaaji mais amuñu ci expérience suñu ñëwee. dañuy mm-hmm. ñëw wax leen li ñuy def. parce que souvent nga teg leen ci yoon bi waa Dakar dañuy wax ne jigéenu Dakar dañu tubaabe. Mm-hmm. mais góor daal il faut nga am lu ko retenir ci kër gi. dëgg la waaw parfois soo ko a am réaction. Ah, yooyu da ciy baax bëgg naa ko <laughs> sa empreinte ba benn jéeg du fa ñemee taxaw déedéet <laughs> mhm. koo xam ne bëgg nga bëggal alaaji yaa ngi bëgg a dugg si sëy wala nga nga dugg si sëy bëgg a bëggal alaaji xam nga concurrence bi affaire wujje bi lu si affaire defante déedéet fii la mhm, affaire bi. Mhm, la ñëw si Khadija jënd ci madame Diagne jënd say affaire dem bëggal monsieur mu kontaan bëgg ci yow problème du am vous les filles nga xam ne yéen a ngi waaja dugg si néegu sëy bu leen ko raté ñëw leen fii ñu ngi waaj a def benn vente privée fële ci si plaza boo leen demee di ngeen fa am lépp loo leen bëgg lu jëm ci wàllu xeetu neex-neex goowe cuuraay nuisette fer lépp mu ngi fi lépp fi am tout dara manqué wu fi te kër yi dañoo war di neex di xeeñ lu neex te période bi ñu nekk période seddaay la seddaay baa ngi ñëw kër yi dafa war a neex di war a gunguni boo tollee ca bopp koñ ba ñu xam ne kër gi jéeg moo fi nekk pour cuuraay yi da nga koy xool rek da ngay da ngay am envie taal ko parce que affaire bi rafet bi mu rafet lii da am envie jël ko taal cuuraay bi boobu si promo bi la bokk. lii yëpp si promo la bokk 3 yi la promo bi. waaw gis nga ni mu yombee 3 yi 25000 adresse bi fii la si West Foire Khadija séduction madame Diagne numéro bi nekk 77 849 08 28 77 849 08 28 am nañ page Facebook Instagram fépp ñu ngi ñu préparé leen jox leen ko GPI ngeen ñëw ji bëgg ndax Europe instant bi dafa sedd yaa ma gën a xam euh, Khadija yi yëpp ci affaire kii la lii lu mu doon nii Khadija. boobu teinte cheveux ah, lii teinte cheveux la. Mhm. pour kii la. pour euh, xale jigéen ñi. ñëpp la fi nekkal moom. la lii. yooyu ay cuuraay la. Uh-huh. cuuraay Dubaay yi la. li mooy cuuraay Dubaay yi yéen ñi nga xam ne moom ngeen préféré parce que ku nekk nag ak bi nga bëgg a taal ku nekk ak sa goût uh-huh. ku nekk ak sa jëkkër bi mu bëgg uh-huh. boobu rek ngay mën a jënd uh, mën ngeen ñëw fii si boutique bi gisoo yi yëpp ay cuuraay cuuraay la yi yëpp ay cuuraay la ci boutique bi ngeen ko mën a fekk yi nekk dafa nekk promo mooy yii nii yi ñu ngi koy jaayee vingt cinq mille lii Khadija mm, boutique bi boobu boobu ay ovule la ñett mooy nekk ci biir traitement lay nekk waaw boobu bassine la da koy teg sa chaise anglaise pour boo bëggee def sa bain intime. Mhm. bi day dugg ndox bu tàng bi di dugg xam nga mu njëkk mag ñi dañ daan toog ci paan. waaw mais léegi dañ ko moderniser defar leen ay yoo xam da koy teg ci kaw chaise bi rek. mu ngi noonu jamono day dox <laughs> jamono day dox dafay dox dangay dox ànd ak moom. voilà lii. yooyu ay parfum chambre la gisoo boo ñoo xam bëgguñ cuuraay. voilà nga leen di parfum xet bi dafa mel ne sax dafay des boo ko defee. parce uh-huh. que jigéen daa war a parfum njegen naa yeeg mm-hmm. dara yeeg kuwet yi am solo mm-hmm. dafa am solo yii yëpp ay parfum sample la yëpp moom la man mm-hmm. ngeen ko fekk si boutique Khadija séduction mu ngi ni yii yëpp moom la gisoo bi bi da ko fiy fekk am yatadoor bi gisoo yëpp fii nga ko mën a fekk boo leen ñëwee fii daal en tout cas doo leen am loo leen naqari di ngeen kontaan monsieur dina bëgg alaaji itam mel ne des fois ñoom dañuy faral di jaar pour jëndal madame yi ay cadeau de Khadija peñe bi depuis cinq man koy romb mhm. li mooy lan boobu nepp nepp la pour nga xam ne dañu bëgg xatal nepp nepp dafa mel ne day day dafa day faj ay feebar yooyu wala dafa am leneen lu muy def lu muy def bari na ah waaw parce que nepp nepp damay wax jigéen bu nekk war na am nepp nepp ci douche am parfois mu hmm. ciy jël xoj ci bouteille un litre di ko raxasoo. Hmm. maanaam efficacité bi moom après ngay revenir ngay doog ngay doog. Femme mariée dee ngeen ñëw fii Ouest hmm. Foire la nekk ci côté brioche dorée bi soo leen ñëwee doo leen ko réccu lii mooy lan. boobu quatre côté lañ koy wax. pour problème de fertilité. pour ñu bëgg a am doom taxawaayu yàgg yooyu. mu ngi leen di expliquer yëpp bi boobu ceeb la. xam nga yi dafa baax day dindi trompe yu bouché. Uh-huh. day raxas sa basin ba mu set. Mhm. maanaam dafa mel na nag soo soo xoolee peñe bi. Mhm. dafa lay delloo démb. ndax mhm. euh, suñu suñu maam yi dafa mel ne yii lañ doon jël di ko utiliser. léegi nag comme jamono bi changé na dafa mel ne da ngeen a ci démb indiwaat ko ci beneen façon. pour nit yi gën ko mën a xam ndax loolu laa gis depuis sànq. bii mooy ban. boobu mooy feuille de jaka. Hmm. aldanke ceeb. Hmm. yii boo ko dee naan soo ñaqee sax da ngay xeeñ neex. Hmm. waaw dafa nekk herbe yoo xam ne dafa baax te lépp naturel la. kon lii moom pour ñëpp la. baax na si ñëpp. waaw même ñi nga xam ne ñoom problème règle douloureuse sax dañ koy naan. Mhm. daf leen fajal waaw. macha allah kon mi ngi noonu. yëpp fi ngeen koy fekk si boutique bi. Mhm. Euh, Khadija yemul kese si jaay ay ay kii nii ay. Euh, yëpp si boutique bi ngeen ko mën a fekk dañuy jaay ay dra mhm. ay couette. dra de lii yu rafet. 6 places ba 7 mm, lay def ok ok. dra yi extraordinaire yoo xam ne. bu mel ne boutique bi da fi fiy dugg de doo doyal. ndax lu ne ngay gis. <laughs> looy dugg doo doyal gis lingerie mhm, bi. ku fi dugalee sa bi nga bëgg. lingerie yi da ngay nekk nag promo. Mhm. nga xam ne ku ñëw di nga am bu la neex. rouge blanc. bleu biig couleur bu la neex nga tànn. Mhm. dem bégal ji mu kontaan. yii yëpp ay lingerie la mu ngi ni yëpp fi ngeen ko mën a fekk si boutique Khadija séduction madame Diagne gisoo yëpp fi nga koy fekk range bi yëpp moom la. Euh, li ay def waa koy dégg naa góor yi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñaxtu ne seen jabar dañ leen di manote waaw fa xew lu doy waar ñu ngi koy ñaxtu tous les jours nga dégg kuy ñaxtu ne jabaram da ko manote démb caabi ji réer caabi ji réer ko da ciy baax xam nga lii tamit wóorul caabi buy réer noonu mais parfois tour bi changé nga jënd mm. manote pour far ñu manote la yow parce yu neex la si biir néeg nag fekk jigéen ak jëkkër ak jabar waruñu am complexe lu nekk lañ war a def ci néeg kon femme mariée yi yéen ko déggandoo yéen góor yi mën ngeen ñëw jënd ngeen manoté seen jabar yi puisque dañ leen di manoté tous les jours ñëw leen ngeen fayu ndax dóor fayu dóor fayu yëpp bi rouge bi la mhm. bi mooy noir bi am na couleur yëpp mhm. Adja lii lu mu doon madame Diagne loolu ay casse-téton la xale yi jigéen yéen da ngeen jonge yooyu noonu da ngeen def ay casteton ah. waa def xale yi bu ñuy doog dugg si sëy bi moom dañ koy jël waaw noonu lépp la ñuy def di def yëpp bu ko defee mu génn gis ne moom lii yëpp jaaroon na ci ba jàll waaw waaw dégg naa fulla euh, am fulla mënul passé mhm. sa jëkkër fu mu toll xelam di nekk si yow dafa mel ne ci na nga ko mën a amee kon mu ngi noonu yooyu yëpp ci boutique bi ngeen ko mën a fekk mhm. yi ay pyjama om la pyjama om yi parfois ñuy offrir jëkkër yi cadeau mi ngi ne lii ay pyjama homme la. pour boo leen bëggee offrir seen jëkkër yi ay cadeau. ñu kontaan ak période bi ñu nekk nag euh, dëkk bi dafa xaw a tàngul torop. Mhm. lii pour les femmes la deux pièces lay nekk day nekk short nekk manteau. nekkaat beneen Victoria Secret yu rafet. Hmm, gis te en velours te sedd lañ nekk. ak seddaay bi yëpp si boutique euh, ma dem Diagne ngeen ko mën a fekk Khadija séduction. Mhm. boutique bi am na lépp boo ñëwee li nga bëgg yëpp di nga ko ci fekk. Mhm. Euh, boutique bi nag dafa bari ay pañe. am na pañe bu ñu njëkk jot am na beneen bu ñu jot fee am na beneen bu ñu jotaat am na beneen bu ñu jotaat am na pañe bu nekk nii bu ñuy waaj jël lii ay lan la moom lii ay boule la mhm. boule brésilienne la hmm. bii cinq couleurs la ou bien six couleurs sax la bii moom dañ koy lekk non hmm. bii genre lubrifiant la ah d'accord waaw yaay xool saveur bu la neex bu tey nga mhm. def mant fraise glace noonu la ko monsieur di sentir kon yéen ko déggandoo waxal na ko boppam kon mi ngi noonu lii ay boobu ëf tenga la boobu ñu bari xam nañ ko ëf tenga bi moo nekk. dama foogoon nen la may nañ ko omelette lekk. waaw nañ ko omelette gis nga. Hmm? gisoo boobu vivreur la. da nga pañe bi nga xam ne nga xam ne pañe bi yow Khadija li euh, madame jaan li ci nekk yëpp moom lépp am njariñ. Ah. lépp lépp lépp am njariñ tout. lii mooy li ñu wane woon sax bul yi deux bi moo nekk noonu mooy mante bi yëpp promo la fi mu toll nii Khadija dafa nekk nag promo yi mhm. nga commencé dajale tuuti xaalis daal di ñëw boo ñëwee dina la jaay mu ngi nekk fii ci West Foire mhm. euh, côté Brioche Dorée bi numéro bi nekk 77 849 08 28 77 849 08 28 am na page Facebook Instagram mu ngi WhatsApp aussi yéen ñu nekk Sénégal ñu nekkul Sénégal yéen ñëpp lii da que nag sëy du nekk si whatsapp bi rek ay madame bonheur da ngay ñëw fii jënd daal di wane marqué sa empreinte ba benn xale du fa nangoo taxaw paree guñu si boutique bi ñu ngi nii di dem di lii yëpp ay nuisette la boutique bi da ngay dugg façon façon kii bu ne nga fiy fekk nuisette bu ne nga fiy fekk yii yëpp ay nuisette la mhm. yëpp en plus dañuy defaale même en groupe pour ñuy jaayaat voilà day def en pour ñi nga xam ne dañuy bëgg di jënd di jaayaat ñeneen ñi mhm. nuisette yi am na fii yëpp si boutique bi nga koy fekk yëpp ay nuisette la mhm. yi ay dara la yi ay dara rangé bi yëpp ay nuisette la fii nga ko mën a fekk mhm. ci boutique bi Khadija séduction dara yi coton 100 pour cent la am na ñoo xam ne seen yaram coton rek lay nangu mën mhm. ngeen ñëw fii di ngeen ko fi am lii pour kii la pour les hommes. pour les hommes la. góor ñi yëpp. caleçon yi sous-vêtements yi ak mhm. mhm, caleçon yi. deux pièces yi. yëpp pour pour les yéen ñi nga xam ne yéen ngi sëy. Mhm. te bëgg daal bëggal alaaji yi ba ñu kontaan. rangée bi yëpp ay nuisette la. yii yëpp nuisette coton la. façon nuisette bu nekk nga fiy gis parce que euh, ku nekk ak sa goût ku nekk ak euh, couleur bi nga bëgg wala ku nekk ak façon bi nga bëgg. façon bi sa jëkkër bëgg tamit moom ngay sol. wax dëgg yàlla boo ñëwee di fi fekk yii yëpp. yëpp ay nuisette la dañu nekk ci promo ci mois de décembre bi ngeen profité bu baax ngeen ñëw soo leen ñëwee di ngeen fi fekk lépp lu jëm ci wàllu sañse biir nekk dañuy wax ni sañse du biti kese sol sa yére wala sol sa daal bu rafet déedéet biir néeg bi dafa war di sañse allah ji di war a bëgg jëkkër yi di bëgg yéen les femmes mariées ngeen préparé bégal jëkkër yi waaw defante foofu la da ngay bégal sa jëkkër ba mu kontaan les filles yéen ñi nga xam ne yéen a ngi waaj a dugg ci néegu sëy tamit bu leen ko raté préparé ci boutique bi jënd dajale am na xale jigéen yoo xam ne aussi seen problème yëpp loolu la jënd tey dajale jënd dajale jënd dajale. daas fanaan la ndax sëy day bette dafa mel ne. waaw te bu la affaire yi bettee da ngay ñëw fekk Khadija am yoo xam ne. xale jiiroo dañ ko jeex na. soo ko amulee rek dafay sonn kon ñu jàll ci beneen boor bi. Mhm. lii yëpp ay dara la ay de lii def fii nga koy fekk ci boutique gu Khadija séduction dem Diagne rangé bi yëpp nag moom la boo leen jëlee numéro bi daal ñëw li ngeen bëgg yëpp di ngeen ko fi am. muy drap muy nuisette muy ay serviette voilà yi may seet ni dafa mel ni ay serviette la yi yëpp fi nga ko mën a fekk si boutique Khadija sélection madame Diagne fi mu ne nag dafa nekk si promo ngeen gaaw daal di ñëw daal di profité bu baax a baax yooyu trousseau maquillage la. maquillage la nekkul fi euh, kii rek nekkul fi euh, euh, femme mariée rek yéen les filles yi nga xam ne ngeen bëgg di maquiller wu di garder seen maquillage te du am problème mhm. lii yi nga xam ne ngeen def si saa mu ngi nii ngeen ñëw jënd commencé yi nga xam ne ñoo xam ne si saa moo leen di dundal ngeen ñëw jënd mi ngi nii mën na lépp charbon yi ma ne charbon charbon yi mi ngi nii mën na dem aussi ci ànd cuuraay yi gisoo mi ngi nii yëpp fi nga koy fekk ànd yaa ngi nii léegi dafa mel ne booyal euh, jël këriñ di taal dafa xewee bi électrique la voilà yi ay ànd la ay ànd électrique la coupé bi dafa wadd bi am na doore bi moo nekk nii bi arsante bi la gisoo yii yëpp fii nga koy fekk nga xam ne dangay jël rek daal di branché teg sa cuuraay. daal di xëy nga koy daal di defee. lii. Mhm. ay décoration ay ay cadeau la. ay cadeau la vous les hommes bu fekkee da ngeen bëgg a bëggal euh, madame bi du ci ñàkk des fois ngeen jaar jënd lii. ñu lay récolte chicha la. li ñuy def chicha mi ngi nii raakool yaa ngi nii di ngeen ko fi fekk lii aussi manotti la manotti yi la nekkoon wax nañ ci sànq rose clair bi euh, góor yi yéen ñi nga xam ne ngeen bëgg a <laughs> ñëw leen mu jaay leen ngeen daal kontaan euh, I love you mu ngi nii lii ay décoration coiffeuse rek la wala waaw teg sa néeg rek monsieur su gisee rek xam ne I love you bi moo ko moom mooy borom kenn moom ko keneen boota bisu la mi ngi ni ngay teg rek jël say bisu def ko ci du réer pattu jaara du réer wala dara du la réer lépp loo bëgg mën nga ko si denc euh, i aussi ay ànd la ànd la ànd yi nag dafa am façon yu nekk mhm. euh, façon bu nekk mi ngi fi mhm. bi aussi ànd la mhm. mën na dem si bureau mën na dem fu la neex voilà des fois da soxla xet bu neex sa bureau yi ay serviette blanc la mhm. lii yëpp mën nga ko fekk si boutique bu Khadija kon ñu continuer euh, boutique bi da ngay ñëw fekk fi lépp lu jëm ci wàllu sañse biir nekk tey sañse biir nekk ci leen ñëw jëm ñu sañse biti ay tissu ak ay dàll dañu sonn ci gis loolu xale yi ñoo recommandé nee nañ naa dem si ñi nga xam ne ñooy jaay yu baax yi ma wan leen ko ñu daal di dem jëndi lii nag mooy lan yow yow ma Diagne lii mu doon boobu plume la Ah, lii mooy plume. Ah, pour les femmes mariées. Ah. kon booy wax ak moom dafa am noo war a mel. yéen a déggandoo. waaw plume bi mi ngi nii. Mhm. ñaari côté la am de nu mu nii. waaw beneen côté bi moom parfois xale bu góor bi dala ci dóor dóor yi am jom. waaw hmm. da ci baax lépp ci lekk séduction la rek. les femmes mariées yéen ñi nga xam ne bëgg ngeen di foo ci biir kër gi gaaw leen ngeen ñëw doxantu daal dee ñëw si boutique bi euh, ma xool bi. ensemble la. bi mooy kii bi ah, bi rose bi la. day ànd ak manteau bi. ah d'accord. nga def à la rek. génn ci sénégalais bi dafa paa nag dañ ko xewal. dafa dafa dafa dafa rafet. ajjuma dañuy def cosaan. waaw yaa dégg nee na dañuy def cosaan. waaw dellu maam li kenn mësu koo gis. dañuy def sëriñ maam yi <laughs> bi noir bi yëpp fi nga koy fekk si boutique bi fii kase kase kase adresse bi benn la West Foire. Mhm. côté bi Yoos Doore bi c'est Hadissa Séduction. gisoo mhm. noir bi. yii fii nga koy fekk am na bu ma gisoon sànq boo xam ne dafa rafet des fois dañ koy gis euh, ñu koy laajte mhm. naan ku ko am euh, mu ngi nii moom moo ko am fii a fekk mhm. bu baax bi la gisoo robb la xaw ma lu mu doon robb la gisoo la su suufees rek taajee ko reer gisoo monsieur day kontaan ne nanga koy taajee reer monsieur moom du reer bu boobaa <laughs> lépp fi nga koy fekk euh, noir bi moo nekk ni mhm. bii blanc bi la Mhm. noir blanc. am nañ ay slip yu rafet. Euh, voilà fii lépp fi am yi ñoo nekk ni ba tey. paañ ba tey bii rouge bi la. Mhm. Mhm. gisoo yii yëpp si boutique bi nga ko mën a fekk yi aussi. couleur bu la neex boo ñëwee da ko fiy fekk am na couleur yëpp yëpp yëpp yëpp ñoo xam nag rouge la ñu préféré mooy seen couleur mën nañ ko fi fekk suñu mannequin bu ñaawal bi gisoo bi mu sol ni bii dafa dafa dafa dafa rafet macha allah euh, les femmes mariées mën ngeen préparé ngeen daal di ñëw daal baax waaw am na booy teppi noonu dama xool boobu ban la bi ban genre bi paañ la yéen a gis paañ bi ah, yéen ko gis nii ah, je ci bind am na couleur yëpp voilà am na couleur yëpp am na euh, motif yu bari tamit am na motif yu bari aussi ku ci bëgg rek boo ñëwee fii dina la génneel wala nga choisir couleur bi la neex nga daal dee bëggal alaaji ah li yére la kon. waaw dañ koy sol ñoom ñaar ñooy ànd nga daal dee kontaan ñëw si boutique bi boo ñëwee dangay kontaan lépp nga fiy fekk. Mhm. so am na ay mouchoir kama yu rafet. Mhm. voilà baax na. yooyu yëpp pour décorer néeg bi rek parfois samedi nga changé déco néeg bi. mu ñàkk waa boo bëggee décorer sa chambre. waaw ngi ne ay plum la. boo bëggee décorer. Mhm. yëpp ay affaire de décoration la ay plume yëpp mu ngi fi si boutique bi lépp nga fiy fekk boo ñëwee incha allah lii lan la nii. Hmm. Hmm. comme ni ma amee carte kamu sutura rek. xam nga yéen xàmmee ngeen ñu ko xam rek bu ñu ko gisee dinañ xam ne fii lañ ko mën a amee. waaw dëgg la. Hmm. xam nga ah, jigéen bu réeree ba pare dafa war a changer àllu gémmiñ a lépp am na fi si boutique bi boo ñëwee di kontaan. ay pot pot pourri. pot yoo xam ne pot pourri moo siy nekk. pot pourri mooy lan potpourri benn herbe la. Mhm. dañ la koy defaral da ngay ñëw rek teg. Mhm. def si parfum muy dégager odeur bu neex. Mhm. nga xam ne Khadija madame Diagne tey ji koo xam ne dafay doog a dugg si sëy am na xale yoo xam ne xamuñu dara. xamuñu lu jëm si wàllu jonge bi ak yooyu. te góoru Sénégal dafa góoru Sénégal dafa bëgg. lu baax jonge bëgg lu baax bëgg bëgg kuy defar ba bu baax. des fois nit du ñàkk nit ñëw di leen. expliquer problème naan ah man alaaji faalewu ma wala daf ma jëndee kii nga teg ko ci axe mu indi le résultat résultat am naa hmm. ci budul benn du ñaar ah parfois samay client dañ may woon ne ma Khadija démb parure lañ ma may ah. waaw. <laughs> dégg naa dem ay message retour de. waaw ay retour yu baax macha allah ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant bu baax moom mm. macha allah waaw franchement. du ñàkk parce que nag góor ñi dañu bëgg ku leen di bégal te des fois ñu yeewu kontaan bi ne la chèque. Mm-hmm. wala daal di dem si bijoutier bi daal di jënd parure indi. wala ñu indi la takk sa bët yi ba si mbedd bi ñu la oto bi. Ah, yu baax ah, yooyu yëpp fii nga ko mën a amee ci ñuy def li koy indi nag. parce que jigéen moom du rëy. Mm-hmm. day day day oyof. lépp lu mu xalaat ne bu ko defee monsieur bëgg rek mu def ko. waaw loolu nag am na ci solo xam nga tamit euh, jigéen ñi <laughs> xam nga boo waxee femme sénégalaise moom mhm. jonge rek nga ci mën a teg mënoo cee teg leneen waaw xam nga sa fer yi mhm. nga nga xool ko gis nuisette yi gis cuuraay yi mhm. lépp gis euh, paañ yi ak nuisette yi lépp loo xam ne day day taaral biir néeg rek boo ñëwee fii di nga ko fi mën a fekk dara manqué fi boo ñëwee da kontaan laaj ji kontaan nga marqué sa empreinte bu ko defee xale yu jigéen yi foofu la ñuy jaay ragala sax duñu jege sa jëkkër duñu ko laal benn yoon dañ ragalee xel dafa mel ne normalement sax bu jëkkëram di xëy da kaa war bu ko defee ñu xam ne jéeg la. waaw des fois nga dégg ku naan cuuraay bi du sama cuuraay loolu lu koy indi. waaw parce que dañoo am suñuy empreinte. Ah, dañu am suñ cuuraay bu ñu moomal suñu bopp. boo xam ne yéen ko bu génnee bu xeeñee beneen cuuraay rek koy xam. <laughs> waaw loolu yëpp ci feemu jigéen la ci jonge gu mat sëkk la. <laughs> non Sénégal xaw ma lu fi amul mais jonge moom lépp am na fi ba mat yépp fi ñu ko mën a fekk si boutique bi mhm. am na lépp macha allah mhm. euh, mu nekk fii ci West fois euh, ci ci ci côté Brioche Dorée bi nga mën a ñëw fekk fi kon Khadija mhm. ñu bàyyi la nga tàggoo te joxe sa numéro téléphone wala da nga bëgg a ñëwaat ci fête yi non merci waaw kon tàggoon te joxe numéro bi. Mhm. day def vente privée fee ca si euh, plaza. Euh, képp koo xam ne préparé nga nga dem du euh, vendredi samedi ba dimanche foofu lay amee ci si plaza. Mhm. mën nga dem nga préparé dafa nekk promo aussi ci mois de décembre bi. képp koo xam ne bëgg nga bégal alaaji mën nga ñëw fii daal di préparé jënd sa yu baax daal di dem bégal alaaji mu kontaan nga kontaan ñëpp kontaan. voilà kon ñoo ko déggandoo tey nag dañu ñëwoon fii ci Hadissa Séduction wax na ay dernier mot gis nga remercier na ay clientam woon na leen aussi ngeen ñëw profité ci ci promo bi mu nekk ci mois de décembre bi woon na leen aussi fële ci si Plaza ngeen ñëw commencé jënd euh, promo dañuy def vente privée foofu vendredi samedi ba dimanche ngeen préparé ñëw lépp loo am ci xaalis rek boo leen ñëwee di ngeen am seen ay bagage ay nuisettes fer cuuraay lépp lu jëm ci wàllu sañse biir néeg rek boo la ñëwee di ngeen ko am boutique bi nag mu ngi nekk fii ci West Foire côté Brioche Dorée bi numéro bi nekk 77 849 08 28 77 849 08 28 am nañ seen page Facebook Instagram ñu ngi WhatsApp aussi yéen ñi nekkul Sénégal mën ngeen profiter envoyé ko message sur WhatsApp bu ko defee dina leen préparer seen ay colis yónnee leen ko par GP ji bëgg ngeen kontaan. waan tey nag Leral Tall dafa doxantu woon ba fii ci Ouest euh, Foire ci bitigu Khadija Séduction Leral Tall bu ñu ko waxee lépp lu jëm ci wàllu taar la taar nag jamul ci sañse ay tissu wala ay dàll wala ay saag déedéet sañse dëggantaan jaay sañse mooy lii mooy li nga xam ne mooy indi lépp wax na ko nee na mooy indi kër yi mooy indi euh, euh, billet d'avion yi mooy indi chèque yi mooy indi paris en yi lépp lépp fi nga ko mën a amee ci boutique bi boo ñëwee li fi nekk da nga naan lii nim ndawe mais lu ndaw loolu mën na la jural lu bari si àddina kon nag bu leen ko ratee yéen les femmes yéen yi nga xam ne yéen a yéen a ngi si sëy yi bëgg a téye yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi waaj a dugg si sëy te bëgg alaaji yi kontaan ngeen marqué seen empreinte bu leen ko tardé ñëw leen fii ci boutique mu ngi nekk Ouest Foire ngeen ñëw kontaan leeral taan nag tous les mercredis lay am fii ci leeral TV ak leeral point net képp koo xam ne tamit intéressé na la mën nga ñu contacter ci suñu ay numéro ñu ñëw jël sa boutique wane ko àdduna bi yëpp gis ko jaay bi daal dee dox kon ñu jox leen rendez-vous beneen mercredi incha allah fii ci leeral TV ak leeral point net may remercier téléspectateurs yi ñu doon seetaan ci leeral TV TNT canal 33 di remercier sama caméraman bu ñaawal bi nga xam ne torturé na ma ba ma sonn euh, ñuy doog a ma koy remercier di remercier ñu ñu doon seetaan yépp euh, di leen wax ni ba beneen mercredi incha allah